mo ngi noonu ñëwaat nak si beneenu vidéo waye ak teunk vidéo bu ama am solo jëm ci nak xew-xew bi nga xamne nak jamono bi ñu ngi koy dégg saa su nekk nañ ne si semaine bi ni démb ak tay wala berki dembu ak tay mu nekk wala Abdelatir ndjay bile nak waye tamit ko president basirou Diomaye jaxar fay fele sa Touba momo ay kàddu yo xamne ku ci melni ni jambal Diagne yekati won nako nak tegon ko si gouvernement bu bes bi kané nak bu ñu yoree réew mi dinañ beddi Touba dinañ beddi kër kilifa diiné yi nak dafa mel ni mujjewul am ndax no president basirou Diomaye jaxar fay ak premier ministre Ousmane Sonko weddi na lu ni mel tay nak dinañ ñëw ci loolu tamit ak ay jangat yu am solo yo xamne amal nañ ko si vidéo bi lee bu len faté abonné bés close de notification bi jaa ngeen jëf. waaw Ngom xam nga wax ji man daanaka démb bi ma ci waxee li may wax bind ci def li may def lépp daanaka dama ne woon sax dutuma ci waxati ndax maanaam booy xool maanaam app bi ci boppam moom dafa yey boppam ndax bi muy wax dafa convoqué maanaam ay valeur ay bi nekk ci ñoom seen euh, bérébu jàngukaay yi waxee ay respe ay discipline yar teggin te moom waxam ji àndut ak yar àndut ak teggin àndut ak maandute manam ndax nit wax ay waxam wax bobu nekk loo xamanteni ku ne xamne ne deug bu werr la ndax am ño xamanteni ñi ni ngi leen di xagn seen ak ak seen yelef te ñu nekk ay citoyen réew mi am ay ak comme ñepp am seen ay yelef mu wax ko nga jël ko moma ne ko benn communauté bëgg ko faire mal avec cette communauté kon ko koku ñepp xamnañ ne mom saytaane ra mom ci perdant yi la bokk ci mécontent yi la bokk benen bi tamit ñeneen ñi jël wax ji bëgg cee bëgg koo politiser bëgg jaar di jaboli si ñooñu dem wax naa leen ko nee naa leen yéen leen ci lancé boobu ngeen nekk ndax yàgg ngeen ci ndax bul fàtte ne ñoom ñoo fi newoon euh, ñii ay menaces lañ ci tarixa yi benn ñoom bis buñ faloo mabbu maanaam kër diine yi moo leen tax a jóg mabbu lu ci demee ne ay jumaa yi nekk ci kër diine yéeg seen kii yeeg nangam ak nangam ñëw ba événement ñuy waajal màggal Tuubaa ñu ñëw fi ne dafa am ñuy bëgg saboote màggal Tuubaa ngi te booba ku ne xam na ñi mu doon waxal loolu lépp bul fàtte ne ñoo ko fi waxoon. ñoo fi waxoon ne maanaam ak euh, euh, dem ba maanaam ne euh, cocktail molotov bi café Touba léegi lañ ko tuddee bul fàtte ne loolu lépp ñoo ko fi waxoon ñoo fi waxoon ne Bassirou Diomaye Faye nii sëñ Bassirou lañ ko tudde woon waaye ñàkk bañ gum bañ yoonu murit ak bañ gum bañ tariixa moo tax mu dem changé tour woowu tudde boppam Diakhar Faye loolu ñëpp boo ko doon lim noonu nga koy toppee du jeex loolu lépp ñoo ko fi wax te benn mos cee nekk dëgg nag benn mos cee nekk dëgg mobiliser nag lu ñu am ci ay journaliste ak ay faux marabout ay tappalekat ay jaxasekat ñuy wër boole ci nag di wër kër yi tarixa yi lu ñu mën ñu di ko wax. léegi loola échec na démb yaakaar naa bi ñu gisee son excellence tey Bassirou Diomaye Diakhar Faye journée de reboisement bi mu lancé mu tàmbalee ko Touba ñoom lan la ñu waroon def lan la ñuy wax waa réew mi la ñu waroon a wax. loolu lépp ni ñu échec yi tey ñoo ñëwaat rek laa même chose ñoo ñëwaat nekkaat fii di wax kon ñoom vraiment maanaam dara ci gàcce ak dara ci jom moo nekkul ci ñoom mais fekkoon te ne wax dëgg yàlla danañ jàng ci seen passé dara dañuy noppi ndax lépp luñ fi mos a wax rek du dëgg te ñoom dañoo cuune ci seen lépp maanaam bataayu communication mënuñu ko la guerre des dañ ko perdre bu yàgg ndax ay cuune lañ mënuñu ko ndax jamono bi moo toll foo xamante ne manipuler ak diabolisation dafa yombut bien vrai que nak guerre des médias mom mu kin mën ko ci génnee gars dañ koy utiliser mais bokoy def tamit nga def ko de façon intelligente ba nga xamné de façon intelligente ba nga xamné nit ñi au moins danay xaw a sax mën a douter mais ñoom ni ñu koy défé manam dañuy wax lo xamné ñepp dañuy xamné du dëgg ba lañu tàmbali sax ñepp dañuy xam liñ ci euh donc kon yaakar na né buñ jëlé manam wax ju melni nii da ngay dégg sax té nak li ci gëna pire moy D'ailleurs, gis ñoo xamante ni des soi-disant musulmans ñoom ñooy ñëw soutenir abbé bi mais ya xayti a <laughs> man buma xam sax lan la leen di considérer vraiment des complexes ñëw di ñu tankal ak vraiment des analyses bidon, des pensées bidon, des analyses minables des cancres yo xamné et ils croient même des d'être des intellectuels day nit nit ñoo xam ne yow xam foo leen di classé mais ñoom li ñuy wax nii da ngay dégg ñoo xamante ni maanaam wax yi ñuy wax ko waxee da nga naan leen pourquoi PN Europe googu ngeen nekk ngeen toog fii pourtant chaque jour da ngeen dañuy marché ne ñu non enveloppe ne bëgguñu fi ay ay ay ay ay jullit bëgguñu fi maanaam ay ay noir yu saal yu salte yi nekk si dëkk bi di ko tilimal est-ce que dafa tax ñu jóge da ngeen jóge fa est-ce que dafa tax ñu jóge fa est-ce que te loolu seen wu leen déranger wu leen de mais abdjulit mom moom bu jógee wax dëgg wala wax liko ko diineem sant rek ñu jóg ubbi sen làmmiñ yi commencé dé wax c'est le problème nak des africains ñom ils sont comme ça à chaque fois c'est le noir qui attaque le noir à chaque fois aussi tamit des soi-disant musulmans qui attaquent les musulmans motax man ñi mom vraiment nek fi di len tontu sax parfois du ko jar parce que vraiment c'est des gens yo xamné ne amuñu benn bagage bu len di permettre ñuy wax ci len ndax saa bu ñu waxee waxu njaaxum saa bu ñu jéemee contrecarrer nit wala ñu koy diaboliser ñoom seen bopp la ñuy njëkk a njëkk njëkk a weer ndax boo ko déggee seen wax ji rek dégg naa fi sax koo xam ne ci panel bi ay waxam fi mu ko doon sukkandikoo ci aadamoo dèjà man kuy wax rek say jël say wax di ko sukkandikoo ci waxi aadama man damay jàpp ne yow tu es tel yow ku discipliné yow ku indiscipliné nga yow da nga indiscipliné ndax koo xam ne saagaak maanaam yàq nit ak maanaam xawi sutura nit maanaam wax ju bon fa mu gën a ñaawee nga koy waxee yow ci kooku léegi moom ngay référé wu pour mën a am loo wax kooku yow vraiment amoo benn leçon booy jox nit ki wala sax affaire u diine wala dara nga am ci droit di wax beneen bi mooy xanaa dafa dañoo xamul ne abbé bi moom buy wax ci affaire u muuru jël affaire bi boo ko moomalee communauté catholique bi moom dafa xamul sax li muy wax parce que ñoom sœur chrétienne yi ñoom nan la ñuy solo nan lañuy solo ñun wax dëgg yàlla dafa am lépp luy mën di doon rek ñun dañ ciy xam lu bari ba pare nag toog noppi waaye nag dafa am loo xam ne ni ko olof di wax rek fépp fu jàmm yendu wala mu fanaan fa nit moo fa xam lu mu waxul kon am na yoo xamante ni régaluñ débat bi nag mais yu bëri nga yoo xamante ni ñun mën nañ ci dugg te xam nañ li ñu xam muy ci côté bu mën di doon waaye danga gis ñoo xamante ni vraiment dañ naan ay jullit lañ te ñoom xamuñu sax lu leen seen diine sant xamuñu sax maanaam mbir bu mel ni bu jógee sax ñoom li leen ci seen diine sant sax xamuñu ko te nag ñooy ubbi seen làmmiñ yi di wax di tànqal nit ñi te nee nañ ay jullit lañ moo tax à chaque fois bu ñu yabee jullit ñi wala ñu am luñ leen mën a euh, diaboliser rek ay nit yu melni ñokay waral ñoo ngi tubal ñep di jéggulu ñep di wax assalamu alaykum rahmatullahi taala wa ah wa mom xana da neeku senegal wala da xul Pastef ni mi doxé ak réew mi ni mi doxé sax lay wax bu ko xooloon amna tontu yo xamne da ko tontu mom mom li so Ousmane Sonko wax yéen neeku mom li ma wax ak <coughs> li ñu wax du ben de Ousmane Sonko wax ak li muy wax mom bokkut sax Ousmane Sonko li français la wax waxul diine sax dëkkut wax na ci diini sax mais français yi la ko jaglél daf ne. français yi liñ bëgg a imposé liñ ñu bëgg a imposé ñun suñu diine nangu ko mais wax na dëgg li seen diine nangu ñoom ñu ngi koy def leen moo tax ñu bëgg ñoo xam ñun li seen dune lu suñu diine nangu yow nag loolu su ne da ngaa yor diine nekk ci biir a téyew amul leen lu mu cey wax benn réponse bu mu cey wax amu ci amut amu ko parce que li Ousmane Sonko wax ci affaire muuraay yeeg yooyu noonu moom bu dee ci moom la catholique ba la mu gëm moom buy dem école moom lay yóbbu quand même wala du dëgg moom moom mënoon naa tontu ci leen de mënoon na ne ñun ay français lañ bu fekkee ne ne fii muuraay gi da leen a arrangé ku ngeen bàyyi njàngum français loolu moom mënoon na koo wax amul leen lu mu adressé Ousmane Sonko parce que xam na ne Sonko moom bu ko dara tamit ay nitam koy tontu dong waaw fii moom saa ñun fii dañ fay nekk pour ñun dañ ñun taxaw pour raak